loolu nag mooy cat euh, su fekkee ni dafa nekk ci nit ki nit ki daf ko war a fexe dindi ci boppam parce que lu ko may euh, noonu lay continuer di yàq ay biram ah, wax naan nag xam nga euh, li ñu tuddee wayn yakaadu wayn yakaadu alladina kafaru la yasriqunaka bi absaarihim لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين aaya boobu aaya bu siiw la ci wàllu cat ñu di ko jëfandikoo waaye am na secret ah xam nga li ci gën a siiw mooy aaya bi ñu jël ko jaxase ko ak faatixatul kitab te mooy aaya boo bindee ci faatixa nga bind wa in yakaadu secret bu baax la nag parce que dafay raxas yaramu nit ki bu fekkee ni nit ki defar na ko mu sangoo ko dafay gis yaramam ni mu oyofee su fekkee dafa diisoon te mooy da ngay da ngay jël faatixatul kitaab aay boo bind soo defee bismillahi rahmaani alamin nga bind wayn nga bind wayn nga bind ba faatixa jeex kooku moom rek boo ko defaree nga pare def ko ci ndox sangoo ko naan ci da gis ni sa yaram dafay oyof parce que moom dafay dindi cat waaye dosage am moo moo moo diisul dafa soriwul soo doxee tuuti rek da gis ni loolu dafay daal di dafay daal di dellusiwaat waaye am na secret boo xam ne boo ko jëfandikoo moom dafay daal di dañ tàqale ko yow cat moom dootu la mën yàqal dara kooku nag dama ko wax bu ko defé lolu dafa nek lu nga dafa am benen bi modi, ñaare da ngay gis nit ñoo xamni bari na ñu makoy laaj di wax ne man dal dama seetlu ni lepp lu ma am rek da fay tasaaroo sama alal fay tasaaroo du tok ci sama loxo euh ñaare nit ki dina ko dal fekk li ñuy tuddé andalem la dafa am xarimu suuf dafa am andale bu bon andale bobu nak mo kay mo kay yakal motax dafa yak alalam lu mu am rek du taxaw day dem te lolou su fekke ni da fay dal nit ki mën na yak avenir ndax su fekke li ngay am du meuna a ba nga mën ci réaliser dara lolou da fay yak avenir euh te su fekke nit ki dafa amé tabia bu ñuy wax euh, euh naar yu muy safara moom it benn la ci tabia yi toujours su fekkee nit ki dafa ànd ak moom loolu daf koy dal lu bari te mooy am am buy tasaaroo kooku it su fekkee dafay dal nit ki nit ki dafa war a taxaw ci saafara ko saafaraam am na waaw ndax euh, boo demee ci ayatul kursi am na secret bu ci mag ñi daan jëfandikoo daan ko liggéey juróom-ñaari fan su ko defee di ko raxas seeni loxo bu fekkee ni loolu dal na nit ki mu def ko dafay gis ni loolu dafay tàqali ko ak moom te lépp lu mu laal ci loxo loolu dafay barkeel moo tax alquran mooy solution lu la waay mën a wax alquran ay solution bi fi ñuy daaneelee nag mooy mbokk yi doon laaj lu dellu ci wàllu bayre bayre dafa bari ay façon ndax am na bayre tur bayre boo xam ne ci turu nit ki la yam te mooy nit ki turam mën na dem ba yegg fu nga xam ne moom tànkam du fa yegg te it fu nit ñi toll dañ koy tudd rek parce que tur yi moo am bayre hmm? waaye jëmm ji amu ko ma tax ko ko gis danaan waaw kii am na bayre boo xam ne it eh, nit ki dina ko am fekk bayre bi dafa dellu ci jëmmam moom nit ki fekk bayre bi dafa dellu ci jëmmam moom nit ki moo tax turam mën na bana am bayre nit ñi di ko di ko tudd waaye jëmmam fépp fu mu teew rek dañuy daal di fàtte ñëpp parce que moom ci boppam moo am bayre su ko defee yooyu yëpp ay xeeti xeeti bayre la yoo xam ni bokkul Mm, tey nag dinaa leen jox benn bayre bu nga xam bu am doole la boo xam ni dafa boole bayre tur ak jëmm ak palaas ak yépp su fekkee ni nit ki e, defar na ko comme niñ koy waxee ndax soo demee ci alquranul karim di ci fekk juróom-ñaari saar yoo xam saar boo ci jël baatu isa la exemple isa waqaatil waaqia isa la tàmbale isa jaakal munaafiquun isa la tàmbale isa samsu kuwirat la commencé isa shamaal fatarat saar la woo xam ne isa la commencé isa shamaal shaqat isa la commencé ñaata saar juróom isa zulsilati isa jaa nasrullahi juróom-ñaari saara ngi noonu yu nga xam ni bu ci nekk isa la commencé juróom-ñaari saari alquran yi commencé isa nag su fekkee ni da koo jël euh, doo ko bindandoo ci benn bis parce que saar wu ne dafa am bisam léegi dangay tàmbali bisu dimanche bu dimanche nga bind isa waqaatil waaqia ba mu jeex nga teg altine nga daal di bind izaa jaakal munaafiqun ba mu jeex nga teg fële altine euh, talaata nga daal di bind izaa shamsu kuwirat nga bind izaa samaan fatarat ba mu jeex alxamis euh, nga bu ko defee juróom-ñaari saar mat na ci juróom-ñaari bés yi euh, loolu nag boo ko jëlee def ko saafara sangoo ko juróom-ñaari fan sangoo ko juróom-ñaari fan boole kook euh, parfum yi nga xam ne moom la war a àndal incha allahu dangay am bayre bayre tur bayre jëmm bayre palaas te lépp loo xam ne yaa ko yore laal ko moo xam place la wala lu mu mën a doon entreprise la lu mu mën a doon loolu dafay daal di am bayre am tur euh, même loolu su fekkee nii kuy takk la soo ko sangoo pare danga koy bindaat nga ëwee ko daru nag wu weex daru nag woo xam ni nag wi nag weex tàll lay doon nga ëwee ko ko kooku boo ko takkee bayre bu rëy rëy rëy la boo xam ne boo wattuwul soo fekkee ku gaaw a tiit la danga mujj dem ba danga koy teg su ko defee kooku xeet la ci wàllu bayre